ab tuddee. Liss <laughs> Ndiago sos Assane Wala. Liss Ndiago voilà combat boobu nag moom. waaw loolu man dama cee kaaw. dama cee ragal kaaw ragal kaaw waaw. li ma gisee Liss di bëree. waaw ak euh, Zos. ni ni kaw gi du ubbeekoo. waaw yaakaar naa mu jël ci kaaw. kan moo ci war a jël kaw. que Zos jël ci kaaw loolu laa ragal naa ko ci man. Ah. bu amee daal du ma bett. kaaw euh, Zos jël ko. waaw alors que Zos buy bëree. kaw gi da koy ubbi quoi. Ah, te te xam-xam bi làmb de moom yaa ngi koy na normal. te liis liis buy dóor day day baax. Ah. bu day lay taf dal la. te bu dalee poignet bi dafa baax. non tey Zoss dafa yomb kaaw si dernier combat yi muy def waaye nag man naa bëre nag it boo jàppee boo jàpp la ma ragal mooy ñu jàppantey ngem liis liis di fa xaar comme mu doon xaar de bu ñu jàppantee moom Zoss na am dara hmm? bu demee amee dara moo dàq plaqué ci loo gis ci àdduna de ah. hmm. Zoss day bëre de waaye nag liis dafa xaw a dëgër te liis hmm. damaa gis mu yor xeex bu bu garaaw depuis bi muy bëreek naaru sopaas te Zoss ñoom ñaar pied droite la te sos lay problème bi mooy du fer mi ngat bi te day teen xanaa moo ne mber li man li ma gën a ragal ci mber rek mber muy engagé ba noppi di aj sa bopp ci kaw mm-hmm. man li ma bëgg mooy booy engagé booy engagé ñaari nga dugal sa bopp mm-hmm. parce que coup yu bëri mën naa dal waaye day fekk nga concentré wu aussi ci sa bopp lay dal waaye sos day teen toujours manton yi toujours mën nga ko am boo xoolee kuuxu guy gi guy gi xam nga ne jubalut sax kuu bi daa laaw rek mu dajeek moom sita noonu loolu moom am na ci sos moom moom loolu moom daf ko war a soor trop trop trop trop mm-hmm. te kee daa te te xeexeex am dafa kii quoi euh, que loolu keroog mag Grand Sall waxtaanoon nañ ci mm-hmm. général euh, Liss Ndiago waaw lamb neex la quoi ndax mm-hmm. Liss liis dafa boole ñaar yu bokkul ñaar yu bokkul bërekat la te day xeex te xeex bi dernier moment la ko gars yi gis na te aussi am na résistance mm-hmm. mooy liggéey gi ñuy wax rek mm-hmm. mbër day liggéey mm-hmm. booy chaque benn heure bi ñu romb ma di dem din ya te imaginel jàmm gën la ñuy jógee te ak suñu din yi ñu entraîné nam sore mais booy bu am ambition la aussi ku gëm boppam la ndax boo xoolee boo koy natt ci tolluwaayam ak par ak làmb yi muy bëree da nga naan lii est que mën na bëre lii loolu nag jom ak jàmbaar moo koy def. Mm-hmm. mu ngi jëm ci làmb joo xam ne nag ki muy bëreel moom ku ne xam na Zos. Mm-hmm. Zos soomaan la. Mm-hmm. te bu ñëwee ci première song yi day dëggal boppam. mais dëggal boppam boobu est-ce que war na ko ci digganteem ak liis. pour yow waru ko. non liis bu dëggalee boppam damay ragal làmb ji metti ci Zos. Mm. ndax Zoss dafa mel ni mënul déplacé wu arrière ma ko gis yëpp du taxaw di léewtoo. maanaam mm. sur place lay taxaw sur place day taxaw Zoss mënul droite arrière yooyu dafay déplacement moom day taxaw rek dër te nii lay léewtoo day siggi ak bopp bi mm. te liis buy dóor day xool bokkul ci mbër yi dóor di gëmm buy door day xool te kuwam day def effet. Hmm. kon na moytu loolu ci liis. te liis tamit daa mën a bëre loolay problème bi. dafa tëlewul bëre de. tëlewul bëre bërekat la. Hmm. vraiment lamb ju neex la aussi làmb lamb buntam la ndax ku ne xam na ni. waaw fi nii fi liis toll daa am fu mu teg bëtam te ñëpp ciy teg seen bët. te foofu mu teg bëtam moom gëmul ni Zoss war na ko mën a téye.